je me nomme Diaba Sora. Je suis très très honorée ce soir et très ravie d'être choisie comme ambassadrice de euh, la marque One, One XBet. Mm mm-hmm. Et euh, voilà, je suis venue spécialement pour signer le contrat. Et je remercie encore le, euh, Badra, monsieur Mouktar. C'est eux qui gèrent mon image ici au Sénégal. C'est ça. société la boo xamante ni dafay def ay paris sportif ñoom dañuy def paris yi ci ay football ci ay lu bari paris yi egg na ba ci sax li nga xamante ni mooy ay ginaar yoo xamante ni dañuy bëre seen biir bëri na ay ndaw yu nekk Sénégal yu ko xam Sénégal nag booy dugg dafa am société bu tudd Lonase mu jox leen li nga xam ni mooy licence def nañ fi ñetti at ñoom nag Afrique yëpp la ñu teew ak ci àdduna bi ndax ñooy société bi gën a mag bi ñu fi teewee nag ñuy xool image yi nga xam ni war nañ leen mën a représenter parce que ñoom ci digital maanaam ci wàllu net bi la ñuy yëngatu yëngatu ci biir yëngatu boobu ñu nekk ci wàllu net bi ñu gis ni suñu sœur bi nga xam ni mooy Jaba nga xam ni image am Makhtar Diop PDG de Subatel qui est le plus jeune et le plus grand producteur d'événementiel en Afrique de l'Ouest mu gérer image donc vraiment jaba ñëw def fi trois jours on était en négociation très poussée avec euh, ki nga xamante ni mooy Assane le représentant de 1xBet et Mohamed le PDG de 1xBet Sénégal et qui centralise polarise l'Afrique de l'Ouest donc ñu discuter waxtaan euh, et Diaba à accepté d'être l'ambassadrice et nous allons nous étendre un peu partout fii ci biir Afrique war a dem ko ubbi fa benn bureau et bientôt à Bamako avec notre sœur. Donc, euh, la Cannes. Euh, am na lu ñu defoon kan bële passé nga xamante ni euh, boo leen ko suivre 1xBet bokkoon na ci sponsor leader yi mais cette année euh, yéen xam ngeen la collaboration entre 1xBet et Subatel dina jur lu gën a graaw donc ñi ngi en négociation très poussée avec le président de la CAF pour pare signature bi avec kan bii di ñëw ñu war a def loo xamante ni lu doy waar lay doon donc comme Sénégal la ñu waroon a signer parce que bureau bi centralisé Afrique de l'Ouest yëpp Sénégal la nekk ñoom. assan ak kilifa Mouha ki nga xamante ni moom lay liggéeyal collaborateur Mohamed dirigé ko ñu ñëw ñu signé ak Jaba pour si semaine prochaine wala semaine d'après incha allahu rabbi ñu fekki Jaba fi nga xam ni mooy Mali pour que ñu mën a ubbi bureau yi nekk Mali. je suis très honorée de les accompagner. One Six et euh, qui euh, gère mon image Sénégal. je suis dans le cadre de signer ce et euh, j'espère le bientôt aussi. Euh, on, vous a, on, on vous a dessiné comme l'ambassadrice euh, de One X Est-ce que c'est pour votre image seulement ou pour des prestations euh, musicales sur scène ah, C'est pour mon image. l'image pour l'améliorer, mon image. Je les accompagne. Euh, dans la vie artistique, euh, que réservez-vous au Au Sénégal euh, bon. on a une surprise bientôt. le mois de, de, septembre, y aura ma bientôt. Donc,